شفيع الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ñu ngi santaat yàlla di julli ci ku tedd ki suñu sang sangu-sang yi di sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam xaalib sumaan salaamu aleykum waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu ay dara alhamdulilahi rabbil alamin alladi hadaana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadaana allah wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi wa xulafaihi wa man wala asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu ay dara ñu ngi lay nuyu di nuyu mbooleem téléspectateurs yi nga xam ni waxtu wi ñu ngi seetaan seen émission bi di seen suukaru koor di ko seetaan ci télévision bi fa tabarakallahu di 2STV di ñaan yàlla subhaanahu wa taala yàlla nañu yàlla nangul koor gi daal di ndokkeel nag mbooleem jullit yi yëpp yëpp ah. yëpp yëpp nag ah, tey defe naa ne bu ñu ci tuddee rek suñu baayu bopp mm. Baye El Hadji Mouhamadul Muniru Njëgën ndeysaan nga xam ne mooy Baye El Hadji Khalifa Gaye Baye El Hadji Khalifa Gaye mooy moom ndax ku ci ne tudde nga sa morom doom ba pare nag toog toogaayu Mame Alaaji Ahmad Njëgën toog toogaayu Mame Alaaji Ahmad Baro Njëgën uuf ñu yiir ñu baax wàcce boyam boppam oyof kooku bu ñu ko yo yóbbaale na géew mbooleem kilifa diine yi fa tabaarakallaahu euh, nuyu suñu sëriñ mhm. sëriñ Babacar Sy Mansour ñaanal ko yàlla yàlla bàyyi ko fi yàlla yokk wér gi yàlla yokk sutura bi ak teraanga bi yokk ijaaba gi fa tabaarakallaahu niki noonu sëriñ Muntaqa sëriñ Muntaqa Mbàkke sëriñ Sidi Maxtaar yàlla yàlla yeesal yërmandeem te taas ñu ci barkeem sëriñ Muntaxa ñu ñaanal ko oh. yàgg ak wér yàlla na ko yàlla defal ba li nga xamee ni moom la yéene ci liggéeyu maamam bi yëpp mu àggale ko fa mu ko bëgg a àggale chérif fa tabarakallahu defe naa ni mhm. tey jii xam naa ni boo moytuwul sa da ngay daal di da ngay daal di tàggoo nag ak mbokki téléspectateurs yi ndax euh, ah, yaakaaruma ni incha allahu ëllëg di nga def émission fa tabarakallahu kon nag ñu ndokkeel la yow it ziyaar la sant la ñaana la yàlla coono bi ngay daj di ko daj ci ah. suñu liggéey bi di ko daj ci daara ji di ko daj ci mbokki téléspectateurs yi di ko daj ca jumaa ja mm-hmm. fa tabarakallahu xam nga jumaa ja macha allahu na ko sa baay bàyyi woon bu ñëwaatoon mën naa am sax day laajte ndax dootu ko xàmmee ndaxte fa tabaarakallaahu bi la say mag dooleelee macha allah jox la ndigal mhm. taxaw nga loo am def nga ko ta ji jii boo demee xabru góor ga macha allah tey jii sëriñu daara ba fa ne teral nga ko mhm. ndaxte ñëw nga fekk fa mu dëkkoon waaye da nga koo toj raser ko defaraat ko defar boo xam ne fa tabaarakallaahu ku ñëw xam ne fii sëriñu daara yelloo na dëkk fu mel nii ndaxte nag at tayibaatu lit tayibiina mm-hmm. yu teey yu rafet yu baax ñi pour ñu baax ñi la te sëriñ daara ba fa ne alaaji géey ak ñamu fa nekkal mm-hmm. macha allah defal nga leen fa loo xamante ni mm-hmm. wax dëgg yàlla l'islam bi yëpp nga ko defal macha allah imam ba nga xamante ni Sénégal loolu bariwu fi imam bu ñu jox logement de fonction bariwu fi waaye imam ba woon ca jumaa ja nga xamee ni wëllëre sa wayjur la woon nga ñëw jël këram nga moom it raser ko ba mu set fa tabarakallahu li ngay am yëpp nga dajale ko def ko fa macha allah ba mere woon naa la sax téléspectateurs yi nañu ma baal rek mhm, ak ñu mel ni man ñu bari waaye nag nit ak jikkoom mënoo ci dara jël sa oto dem wanteer ko ngir lan liggéey bu taxaw nga àggalee ko ko loolu macha allah rëy na lool lislaam nga ko defal yal na la yàlla fay yal na la yàlla sàmm yal na la yàlla ay dara defe naa ni ñaanal tamit macha allah waa Gabon présidente ba Ummi Thiam waaw Ummi Thiam macha allah ñaanal ko ak faat kii ajaa fàtte Adja Sakho Adja Sakho eh, soxnay Alaaji Ousmane Gindo macha allah daaw xam nga ba ñu demee Gabon invité nañu këram mhm. defal ñu reer bu jéggi mhm. yàlla na yàlla fay ko amiin yaa rabbi aminte aminte sëy mi nga xam ne aminte sëy Mm-hmm. Aminta Sey mi nga xam mooy lijjanti suñu visa bi toujours wallahi day bu ñu doon dem di ànd ak moom waaw lépp boo ñu ñaanal ko yàlla ah Adja Kumba Waly Diagne macha allah mooy wéy suñu yaayu bopp mm-hmm. di suñu kilifa di suñu lépp nag mm-hmm. yaa Kumba Waly jërëjëfati di la ziyaara bu baax xaali Ousmane jërëjëf di ziyaara ñëpp di feddaliwaat mbokk gi kóllëre gi kër ga kër imam yegg na ba peinture nañu jeex na tàkk alhamdulilahi rabbil alamin jumaa ji moom baanaka soltu na mhm. ñu ngi sant yàlla bu baax di sant sant ñu baax ñi nga xamante ni jàpp nañ ci mhm. waaw ñu baax jàpp nañ ci waaw te bëgguñu ci feeñ sax nag ñu ñaan suñu borom subhanahu wa taala yal na yàlla fay ndax ku yëkkati sa dërëm def ko ci néegu yàlla mhm. yàlla nee na maa la dig dinaa la tabaxal kër ca aljanna kon yàlla na yàlla dig yooyu ñu ñu dig yaakaar boobu ñu yaakaar mhm. yàlla nañ ko yàlla defal ñu ñëpp ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Ali Ousmane delluwaat rek di santaat suñu borom mhm. ndax nag euh, euh, euh, Alaaji Ibrahima Sakho mhm. nañ ko fàttaliku bu baax <laughs> Sakho Ilimaan sa maam ju baax ji yàlla na yàlla yokk leeram yàlla na yàlla taas suñu barkeem Alaaji Ibrahima Sakho moo daan wax naan léeg-léeg nit mébét def lu baax lool waaye yàlla du ko jox mën-mën bu ko defee nee na léeg-léeg nit am mën-mën lool waaye yàlla xiiru ko ci def lu baax nee na léeg-léeg nit am mën-mën yàlla xiir ko ci def lu baax waaye dogalul mu def ko mu sotti bu nekkoon nit ki bu la yàlla joxee mën-mën kaar kaar yàlla na yokk yàlla xiir la ci def lu baax nga di ko def yàlla na ko nangu nee na muy dogal ngay def mu sotti nee na lu la yàlla baaxe la Alaaji Ibrahima Sakho lu dee jàngale. ah macha allah le grand pédagogue. Ah, hakim la woon waaw hakim la woon punkal la woon. Mhm. aarif billah la woon. wallaahi moo tax keroog dégg naa la comme sa maam la. Mhm. nga tooñ ko. maa ngi profité di waale njabootam rawatina nag xalifam bi Alaaji Habib saako ku baax waaye nag di nuyu nag ki nga xamante ni moo wuutu maam Alaaji Ilman saako muy Baye Tafsir saako mhm. mu baax mi mu yiw mi. mu am xam-xam oh, sama sama maam la xam moom dafa dafa dafa rafet macha allah rafet macha allah bu ma ko nuyoo ni ko maam dama bëgg nag bu ma màggetee mel ni yow mu ne ma kan moo la wax màgget naa ndeysaan <laughs> ndeysaan ndeysaan xam nga baax rek baax rek baax ak loolu yëpp ak baax alaaji Seydi Aboubacar Sakho mhm. muy Mbaye Sakho mhm. Elimane Sakho ñoom ñëpp nag bi ñoom Sega Sakho kenn waaye nag alhamdulilahi rabbil alamin gis naa la xam nga nit ku nekk ak li ko yàlla defal mhm. alaaji Ibrahima Sakho nee na dund naa ba passé quatre-vingt-six ans di dem docteur musu koo tiim nee na musul naan comprimer musul am piqûre mu ne samay doom a ngi nii samay nawle lañu maa leen jur de maay seen kilifa waaye samay nawle lañu mu ne amul kenn ku ma ci mës a gis docteur tiim ma nee na ndax mankat yàlla du ma may boîte pharmacie bu toll di falaxeeg naas <laughs> may jël sama xaalis di ko sànni ci pharmacie bi <laughs> te nee na 1929 la gëj a wàcc samedi ba ni mu génnee àddina 94 nee na amul samedi amul dimanche amul ajjuma ba mu demul ci gàmmu demal bëccëg bi conférence guddi gi gàmmu ba nu mu génnee àddina bu paree jour de semaine yi mu nga ca tool ya mu nga ca tafsirul quran yi noppaluwul benn yoon te dund na presque quatre-vingt-dix ans kooku musul am musul am dara loo xamante ni metti na ko mu dem ci docteur mu ne ndax kat falaqeeg naa si bii nee na ci lay jël di fajoo ndax nag shifaa min kulli daa mm-hmm. kooku nag ma ne nag alaaji Ibrahima Sakho alaaji ibrahima saaxo la radiallahu anhu ñun ñun la <laughs> ñun dañuy jàng di ñaan tey faju waaye mag ñi fi ñu toll woon waaye mënu ñu leen dab moo tax gis nga nit ku nekk day xam palaasam ñooñu kenn mënu leen dab ñoom alaaji abdou aziz si dabaax dañu marqué addina marqué jamono mm-hmm. ñooñu ba ba adduna yi tukki mm-hmm. billahi kenn du leen fàtte ndax liñ fi def du fi deñ ba bukk mm-hmm. nga xool ku ci mel ni tabarakallahu sëñ abdoulahad mbakke radiallahu anhu sëñ Abdoul Khadr Mbacke bàyyi Cheikh Bachirou. mi yor porte bi. ci mbaax gi ci xam-xam gi ci yiw gi. nga ko xoolee rek xam ni kii dañ koo yar. boo ko xoolee rek xam ni kii dañ koo defar. waaye fa tabaarakallahu ku mel ni Serigne Salih Mbacke xool ci mbaax ga xool ci yiw gi xool ci yàllaa gi ak ci dëddu addina gi xam nga ñooñu ñëpp dañuy ay mbag xoolal maam raan laay <laughs> mooy bàyyi ibbalaay ko rafet mais musuma gis ko rafetee noonu leer leer nañ baax. yiw macha allah Sénégal yàlla def ñu maam bu. nekkoon fii ci Ndiassane. macha allah ko xàmmee ak El Hadj Abdou Aziz Dabakh mook El Hadj Abdou benn benn jëmm lañu. Sénégal yàlla def ñu fi defal ay mbir yoo xamante ni. Mhm. ay kéemaan maam Alhaji Ahmed Baro. moo tax sëñ Muniru li nga wax. Mhm. keroog bi sa bàyyi génnee àddina. Mhm. boo gisee toog bi mu toog. uuf njaboot gi. ci responsabilité gi. waaye nga xam ne kilifa kilifa kilifa am na de. Sénégal yàlla daf ñu may ay kilifa yu baax. Mm-hmm. yu fees seen place. Mm-hmm. ñuy ñaan nag suñu borom subhanahu wa ta'ala. yal na yàlla sàmm ñi fi ne ñi dem yal na yàlla yokk seen leer waaye ñun njaboot gi yëpp yal na ñu yàlla tënk ci seen keppaar yal na ñu yàlla tënk ci seen keppaar bu boobaa rek lépp dina baax macha allah ay dara fa tabarakallahu mbokki téléspectateurs yi xam naa tey moom dañuy tàggatoo rek mm-hmm. macha allah mm-hmm. a ah, ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla may ñu incha allahu suba ñu mën a toog nag mm-hmm. def ak yéen li nga xam ne mooy feetu korite gi ndax nag wax nañ leen lislaam ñaari feet la am feetu korité ak feetu tabaski dootuñu nangu nag feetu korité jot wala feetu tabaski manuñoo bañ ku ci feetoo neneen sañuñu koo bañ Mhm. waaye nag du ñu nangu kenn jël ko di ñu bàyyi ñun daal dinañ ci feetu moom mhm. ndax ñoo ko moom keneen ku ñëw nag feetu mhm. bu la neexee noo ko defee it baax na ndax moomuñu lislaam bi donte nag ay jullit lañu waaye nag dinañu ko jël feetu ci nan lañ cay feetoo ni ko yàlla bëggee ànd ko ak 2STV Chérif tabarakallahu xanaa nuyu rek Ibou Sini Laay macha allah moom sa soppe la ku baax suñu waay la ku mën a boole ku mën a defar diine ji tariqa bi Babacar Fall waaw mooy Ibou Sine ñaanal ko yàlla. waaye nuyu Babacar Fall bu ministre Abdou Fall. waaw moom it soppe émission ah, bi la ah Babacar. Babacar suñu Babacar la macha allah gàmmu. waaw ah. suñu suñu suñu suñu doom yooyu. waaw wallaay gàmmu Fall ay xale lañ yoo xam ne. émission bi du leen raw. ndeysaan waaye sant bu baax Bouba Guèye. waaw ah. boobu met maam Adama Guèye la. ndeysaan fa tabaarakallaahu jamono yële dama ko defal benn émission. ci ci Instagram ci Instagram. Mhm. waaye bi mu paree. xaritam yépp dajale xaalis bu baree baree baree bari mhm. daal ni ko ñoo ko def ci daara def na lu baax xam nga nag loolu ay xale yoo xamante ne dañu am yaakaar ci ñoom ëllëg mhm. bu ñuy def geste yu mel noonu mhm. day ñu ñaanal leen siiwal ko ba ñëpp ñaanal leen ñaanal papaam met maam Adama yàlla ah, sàmm ko njaboot gi yëpp fa tabaarakallaahu yàlla sàmm leen aar leen bu baa daal mbooleem ku jaarale dërëm ci loxoom nañu xam ni def na fa ngeen ko bëggoon mu dem fa def na ko muy ca daara tew ma Aziz macha allah ñoom ñëpp nag ak Maxtaar fa tabaarakallaahu Chérif defe naa ni émission bi waxtu wi mu ngi jeex waaye it defe naa ni koor gi macha allah mu ngi tàggoo nag mm-hmm. mu ngi tàggoo mbokk yi nañu nañu nañu defarwaat li nga xam ne jot nañ koo jàng ci koor gi yëpp nañu ko nafar nafar ko mooy lan mooy paa rek di tari rek di wax rek tari na lii déedéet mooy na ñu a jël pikiir yooyu ñu pikiiru ko mhm. waxtaane nañu fi dimbalante waay waay nañ ko pikiiroo mhm. waxtaane nañ fi wàccee sa bopp waay waay nañ ko pikiiroo mhm. waxtaane nañu fi ñu tooñ la nga jéggale nañ ko pikiiroo nit ji la njekk eh, eh, njekkat yi nga faye ko njekk yooyu yëpp dañ ko war a pikiiroo mu ne ak ñun ñuy dox ak moom bu ko defee réew mi jëm kanam fa tabaarakallaahu ni ki noonu daal Chérif waa club foire bu Gambie ah. yëpp Euh, alxaaji Malick Malick Mendy mm-hmm. ñoom ñëpp ñu ñaanal leen fa tabarakallahu mm-hmm. ñu nga fa am benn dëj xataab jaane dafa génn àdduna ñu ñaanal ko yàlla jaale ko ñaan yàlla na ko yàlla xare aljana yàlla na alaxira doon noflaayam defe naa ni shérif loolu daal moo doonoon kàddu yi macha allah Babacar Fall mm-hmm. dama koy wax euh, papam papa ma ne ko déet yow doo sama xarit ah man Babacar Fall mooy sama xarit waaw yow suñu wayjur nga waaw ndax Babacar Fall mm-hmm. tabarakallahu di ko sant bu baax a baax euh, Adja Minti Fall mm-hmm. ca Pikine mm-hmm. moo ko waa këram yëpp minti suñu xarit suñu jarbaat boobule tabarakallahu bëgg sëñ Babacar si waaw bëgg sëñ Babacar si yónnee na nag suukaru koor waaw deux cent mille pour yow ak pour man ku nekk deux cent yal na yàlla fay la amiin yaa rabbi amiin jërëjëf yal na yàlla fay la yal na yàlla taxaw la ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye sëñ Moussa tabaarakallahu waa ji li mu waxoon ba léegi defagu ko mm-hmm. Moussa Mbuub tam ñu ngi koy nuyu xam naa mën nañu ñaan munti fa tabaarakallahu ñu ñaanal ko yàlla yàlla bu dul woon teeg bañ la daloon waaja dal ma daal kon mm. dama naan sax macha allah jéggal naa la man sama wàll ak yëpp ndax waa ji dafa ñëw ci buntu jàkka ji fekk kenn ci buntu jàkka ji mu ne ko waaw ana noddkat bi mhm. noddam gi neex mhm. mu ne ko mu ngi nii mu génne deux cent mille jox ko mhm. daal ni waaw kii bale jàkka ji mu jàkka ji moom di ñu ne ko mu ngi mu génne deux cent mille jox ko bi mu bi bay dem daal ni imaam ana imaam ñu ne ko imaam a ngi mu nuyu ko ni ko imaam yow moom du ma la jox dara du la defal dara mm-hmm. yow dama lay bàyyeeg yàlla sa taxawaay ki diine ji mm-hmm. yàlla la ko yàlla fay mm-hmm. imaam bi ne ko déet bu ma bàyyeeg yàlla boo bàyyeeg moom du baax <laughs> waaye defal ak man ni nga defal la bët bitti dama bàyyeeg yàlla bi muhammadin wa bi birtihi wa bi baxdihi wa bi sibtayni a'lamil huda wa bi sahbihi wa tabi'ina lahum fahum sadatuna ahlul makarim wan nada <laughs> mu ne ko bu ma bàyyeeg moom mu ne ko bu la nga defante ñi defante ko <laughs> waaw waaye daal lu dama ko dama la eh, na ma bàyyi ak yàlla rek eh, macha xam naa ni jërëjëf ay dara tey moom def noonu rek macha allah jërëjëf lépp daal mais nag bul bàyyi gel bi bul bàyyi masque bi waaw distance yi dee ko jël waaw ndax yàlla aar la bu ñu yeggee kër ga di raxas fu ñu toll ak saa jërëjëf jërëjëf ay dara yàlla na yàlla mottali amin ya rabbi amin fegu faju ñaan yàlla incha allah jërëjëf rasulallah حبيب الله